jekki-jekki ñu yeew biiru mondialiste yéene yi ndax ñoom fii dañ koo def dañ koo def léegi wutukaayu xaalis de jekki-jekki moo xam dañuy tàngal kafe rek xiifal suñu bopp maanaam ab année lëmm ñu jekki-jekki ñu xool beneen façon cant ambargo leen ndax taalibe sëñ Tuubaa dëgg comme embargo nga yëg fu soree sore laay wax ak ñenn ñi nga xamee ni dem ba ci mu yàgg sëb reporter naan boo demee Tuubaa te seen film yi yëgu nekk ay nëxanoom lañ wala mu naan tamaani na film yi ci taalibe yëpp bu leen sëriñ joxoon ndigal ñu lànk te loolu reporteru benn rajo boo xamee ni jur na télé moo ko fi wax te moom ànd na ca mais léegi ñooñu est-ce que mënuñu suñuy publicité ak yeneen yëpp bañ faa aw maa ngi waxe fu sori ndax ñeneen ñi ngi koy def taalibe sëñ Tuubaa comme embargo nga yëpp mooy bañ a tee publicité ci yow bañ a tee jënd ci yow bañ a def noonu nañu xool loolu nañu xool yooyu léegi nag dub xale mooy wax ndax maa ngi ci ñenn fukki at ak juróom benn yu topp te Obama mii kootul njiiti Afrique yëpp te moom juróom-ñaari juróom-ñaari weer la ma magam mate mi ngi juddu 3 août 1961 man maa ngi juddu 1968 1962. te fi mu ne kootul njiit yi yore juróom-ñett fukki at yépp ñu ngi ko tàllal loxo bëgg lool xeemeem ko lool bëgg ko lool te du kenn ndax ba mu d'accord ci góor jigéen rek Obama du kenn. du kenn du kenn ca sëñ Touba du kenn ca man du kenn ca Muhammad sallallahu alayhi wasallam du kenn ci yéen du kenn ci yéen ñoom nag dañoo nasaraane lool. politique sëñ Tuubaa baa gi al bu'du min allaahi laam gi laanatullaahi taa gi tarku salaati lu ci des kaaf gi al kufru billaahi loolu nu muy baax alaaji àlli yuroo sama papa sax waxoon na politicien moom lu mu la wax du ko def te lu mu def du ko wax ci tënk lu mu la wax du ko def lu la wax rek du ko def waaye nag li muy def du ko wax nuñ mën a def fi ne àgg nañ fa yoon wa àgg na foo xamee nag ab taalibe bu taalibee moo ñu war a yore réew mi ah. ndax ñun ñii suñ contribution ci réew mi ila xutta zimaami ila al ardi allati ixtartaha lii wa banaytu fiha ad daarayni li abudaka fihima bil limaani wal islaami wal ihsaani wa sammaytuhuma daara salaam wa tuuba tabarrukan loola rek la ko tuddee tabarrukan bihima fajaluma bi fadlika wa bi jaahi wa bi jaahi wasilati ilayka saalimatayni tayibatayni kon xutta zimaami ilal ardi ilal ardi lati ixtartaha lii sëñ tuubaa di ko wax kon tuubaa gee yàlla ko ko joxal boppam aar ko moom aar dëkk ba aar lu baree ba aar loo xamee ni yéeme na sax muy jëmm ju kon kooka lañ war a nekkub taalibe tamañ cee rax dara kon bu boobaa te itam di xool ñi nga xamee ni ñoo ñuy jiite loola bokk na ci solution yi maa ngi ñëw ci solution yi pour tëj athaaru tadli tadlil aw tadlilul garbi ala shababil muslim bokk na ci léegi am na koo xamee ni sénégalais boo xamee ni moom maasuni yun baxt moom ab franc-maçon cent pour cent la am na koo xamee ni itam bay na bay na la moom nekkul franc-maçon nekkul lenn bu xëyee suba leele bu gisee nit ñi woor ñu woor bu gisee nit ñi julli ñu julli waaye nekkul dara am na ci koo xamee ne nag moom dafa yeewu rek nekk ci siraatal mustaqim moom moom kooka dañoo bëgg ni Adnan Badruddin Saïd maa ngi jëfandikoo li may wax nii am na ci loo xamee ni maa ngi koy jëlee ci waxtaan wum waxtaanoon ci màkkatul mukarrama waaye nee na am na koo xamee ni moom dafa xëy rek mel ni ñoom Cheikh Mouhamadul Fadal al Bakki yi ñoom Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ngay yéeg nekk rek ñu jàngal ko liñ ko war a jàngal xamal ko liñ ko jàngal jàng bari na lool waaye tarbiya rabbihim bil himma moo tasaaroowul walaatu rabbihim bi dërs faqat léegi nag gars yi dañ leen a jàngal ba nga xamee ni sax dañoo ñëw contre far ñu baax ñii te ku leen contre sax ca te dëppoo da nga am problème ak yàlla kon foofu la problème yi nekk am na nag koo xamee ni comme ni ma waxe moom saaraanoon na sax waaye yàlla baaxee na ko léegi ba mu ñëw ci diine ji kooku ñi ci ëpp ci ñooñu léeg-léeg dañuy contribuer contribution bu am solo waroon nañu itam ñu bàyyil sunu xel ñun ni sëñ Tuubaa moo wax wala takun multafitan li kulli man raaytahu yusbihu saalihan zaman fa innama almadduhu aw dammu yakun min baadi tajribin fa jarrib yaa fatin kon du koo séen rek ni kii la Cheikh Saalihu de moom kaana saalihan wa muslihan moom mi ngi doon xëydi gont ca la sëñ Tuubaa doon xëy di gont ca nam ka ma waxuma ni mooy sëñ Tuubaa nekkoon na fi taxawal fi diine ji aar ko di jël xaalisam bépp di ko def ci diine ji ci fukki tool ak juróom lu ko ëpp junniy junni ci taalibe ca xel koom ak yeneen yu dul yooyu waaye léegi nib sëriñ ga ba noppi yittewoo yar njaboot gi yittewoo wax leen li yàlla wax yu baree bari yoo xamee ni yéen ñi toog fii am na ñum ci neexul waaye yéen bu ngeen ko waxee li ci ëpp daal di cay xawma ab problème laa koy tudde xawma lan waaye daal doy na waar lool il faut liñ ko bëgg a jënde jëru ko loo xamee ni laafaw yoo moo ko gën a yoo moom woyaf na lool laafaw yoo yàlla ba mu ko bindee ba léegi gëstu yaatu ko mooy àddina ndax jéppi gum ko jéppi ab kaso kilifa àddina sax du bëgg kaso du bëgg a dugal kenn ci kaso te fii ab kaso la kon il faut travailler ngeen baal ma de il faut travailler islam wax na ko beaucoup travailler liggéeye liggéey toujours travailler daw man nga nekk ci saa su ngay liggéey saa su ngay liggéey nag danañu ci yégalee ñun dañuy jàng di liggéey di jaamu yàlla léegi ba koy mujj encore travailler man ma koy tekkee sommet beaucoup some toujours some encore sommet ndax xanaa ngelaw li xale yi de bëgg nañoo liggéey waaye dafa mel ni Louga gee boo demee usine bu mën a jël juróom fukki nit nekku fa da ngay xëy suba di naan ci air bi naan travail néew leen liggéey les conditions yi nga xamee ni vont permettre aux jeunes ensemble ñu mën a liggéey mooy dañuy jël xaalis bi ñuy wax ay internet ak yeneen ñu ubbi ci forage ñuy bay bu nawet bi jeexee ñu bay mbayum noor ak yeneen yu mel noonu ñu créer usine di ca liggéey lu am solo nit ñi itam bañ a dëpp tool yi ndax maam Thierno radiyallahu taala anu lebaloon na fi nasaraan si bi ñu amee problème ak baykat yi moo leen lebaloon pepp te suñ seexu naa Mbàkke Abdul Wadud mu def gëstu bi nee na ma mujj ñu ko fay kon sàcc nañu alalam ci waxin ñooñu dëpp doon nañu bay doon nañ liggéey nañu nañu delloo gëm yàlla yaakaar yàlla ni ko sëñ Abdullah doon wax waaye dem ba ci mu jàgg ñu xaw a gëm nasaraan yi si lool mu ñu yàqal lu bare bari lool ndax li xaw xawle Aliou sàll ji nga xam mi ngi ko jëlee ci la wàcce ca jóge ca baytul izza ñëw ci yonent sallallahu alayhi jóge fa ba mu jóge ba agsi ci baytu na zamina samay dunya wa maa kaydu firawna illa fi tabaab kon hulul yu al muqtaraha bokk na ci tafqiif wa tarbiyatu assababil muslim ala diinil xaniif dañ leen di jàngal doo leen jàngal ñu naare doo doo leen jàngal ñu naan jërëjëfe jërëjëfe sëñ Tuubaa rek naan amoon nañ fi benn benn capitaine bu polyvalent xam ne boo ko tegee ci défense bi mu dem boo ko defee ailier mu dem boo ko defee latéral mu dem boo ko defee muhajim mu dem di ko tiit naan moom moom mais xanaa xamoo ne xisbullah toujours day soxla anasir yoo xam ne ni ñoo koy liggéeyal li qawlihi jalla jalaaluhu inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la xaafidun du ay malaaka aw nit woo xamee ni dee ak dund ñoom la ñu yemale di liggéeyal yàlla kon bu ñu nekk naan maw maam Maodo maam Maodo rek déedéet loolu doyul nañu wax loolu ah kay nañ ci yokk nag ñuy nekk ci dara waaye mel ni équipe boo xamee ni ba muy def regroupement ceeb ba xorom sax dafa ëpp takkaanee lool ba noppi buy bañ leen jox kootul da xorom lañ ca def buñ demee ca terrain ba duñ mën a liggéey ñu bari sax far ci annonceurs yi mooy jullit yi lank lañu man du ma du ma du ma football buñ demoon bay football ci suñuy camp la ñuy marqué moo tax xoolal démb nit tardeel na ma lu mat juróom minute te xamul ne ab conférencier la ca Louga ma jóge ci banque di dem sama yoon mu ni Baay Faal la te nekku ndax Seex Ibra moom ku bëggoon sëñ Tuubaa la ku bëggoon yàlla mu dogale ma ci ñooñu la di ma laaj xaalis ma ne ko na ma may mu taxaw ci sama yoon di wax ak man ba daanaka daf ma bëgg a tifli ma ni ko may ma man man maa ngi yor samay teggin rek ndax sëñ Tuubaa kat loolu lañ jàngal ci ci laa bëgg a nekk mu boloke ma lu mat cinq minutes loolu ak tooñ la te wóor na ma ne dana ma wax lu ma naqari ak yeneen yu mel noonu loolu lañ ni mooy taalibe tey bi ci tegu mooy markazun man ngeen ko man nañu ko ci moridi laa man nañu ko nu ñu markazun li rasdi suhuf wal majallaat wal kutub xawla makayi di iblis mooy lu ci bokku rek ñu gaaw ni bokku ci markaz boobu nag danañu am ñoo xamee ni musaqafiina wala ulama ci luga yépp xëy na luga yi gën a siiw al arabiya al faransiya al latiniya lu mën a doon li di diir di liir lii di liir di liir lu mu doon gaaw wax ahlul xal wal aqd ñu jël xaraaraat allazima loolu bokk na ci sama ay min min min min xululi al muqtara aw min al xulul al muqtara bokk na ci itam ñu wax gouvernement bi te ñun kët ku ñu wax dara te jublu ca dana ko def kët ko def kët ndax dafa mel ni ñun ci baax ñi ci baax laa wax dafa mel ni ñun ñooy saha yi na yi nekk Amérique téye ci doquk Amérique ñun murid yi buñ caaxaanul fa ñu joxoñ fa la ki jiite réew mi fa lay féete kat lañ ko wax lay def kat barke alquran sëñ Saalihu sax tere na waat waaye dama ni ñun murid yi kat bu ñu bu ñu waxee kët te caaxaan ñunu kat gaa yi danañu ko def kat ndax ku mere nga yëg ko kat mere nga yëg ko kat kon nañ ko wax ni ko yére yu bon yii jumbux aawut yeeg dangal yeeg yeneen yooyu likra yu bon yooyu jigéen ñi sol di njaalo suba ngoon nekk ci jaahiliyatul hadisa na dak bu mënta dak ku ko fi indee teg ci daraay teg ci ay frais yoo xam ne kootul du ko mën a jaay bokk na ci min xolool bokk na ci itam firaqu daal la lu mel ni Rotary Lions Club Rotary Club jamiyatul mutafailat mooy soroptimis ak yooyu nga xamee ni dañ fee nekk di di yóbbu nit ñi ci ak kéefër ñu fexe ba ñooy ñuy dimbali ñu ñàkk ñi i'aanatul fuqaraa yi wal yataama wal masaakin comme que suñ Tuubaa moo ko digle ci benn wasiya bu mu doon jox benn doomu aadama ma nga ca maqatu faat min xasaay say xadir ñu ñuy fexe ñu ñàkk ñu fexe leen a ba duñ nekk dahaaya al firaq al dalla al mudilla loolu itam bokk na ci nañu nañu nañu yëkkati ci kom yi di ci dimbali ñu ñàkk ni léegi comme ni ngeen fexe ba mu ba mu ba mu ba suba ñu mën koo am lu mel ni xutba bi ñuy defee fii ak bi ñuy defee Touba nañ koy def bas ci abra al qanaat aw al mahattatat al isaiya wa talfaziya nañuy fexe ba conférence xutabul juma yi ñu ñuy fexe bu ajjuma passé wala yooyu ñu ñu koy teg njariñ yooyee ca nekk nit ñi di ko jariñoo fi may tëjee laa tatawallaw yaa ayyuha alladina amanu laa tatawallaw qawman ghadiba allah alayhim qad yaisu min al axirati kama yaisa al kuffar min ashaabi al qubur laata maida itam yaa ayyuha alladina laa taxsul yahuda wa nasar awliya li eey baadum awliya baad bàyyi leen leen fële nekk leen ci li ngeen nekk ñoom ñu nekk ca lañ nekk lakum diinukum waliya diin gi kët alana amaluna walakum amalukum laa xujjata baynana wa baynakum alla yajma'u baynana wa ilayhil masir ak anaa bariwun googee nañu fexee def noonu sëñ Tuubaa noonu la def ba ba muy jógee ci leen jolof jëm buqaatul mubaaraka mi ngi mel ni ña ngi koy wax ni ko fa xulus hadu bi anna muslimu boo leen waxee loolee ba noppi ñu sax ca seen kéefër gee yow fa xulus hadu bi anna muslimu kon dafa mel ni challenge ci défi yi bari na lool mataan tànnoon ci ñëwuma ci le 11 septembre ñëwuma ci lii li ma doon wax lu ci bari te ma jëlee ko ci ñi nga xamee ni jullit lañu kii itam ba mu indee di def di ko di def baax bi da cee ànd ni ñu attaqué lépp ba nga xamee ne danañu dem ba ci mu jàgg sa daayira bii association ci Amérique boo ko amee dañu la naan association bi the new world order lii mooy an nizaamul aalamil jadid nee na fi mu ne sab association da koy créé ñu ne la nga ni góor jigéen du ci dugg ñu ne la aha kay amoo droit tere lii sama rakk bu nekk Italie moo ma ko yónnee woon dafa am xees bu bu bëggoon a juddu ca Hollande dane xale boo amee fukki atak ñaar su ko neexee def yaramu neen su ko neexee sax am rapport sexuel mooy am euh, sëy ak ak animaux yi mooy xaj yi ak fas yi maanaam daal xale ci tënk su ko neexee mu jouer pour porno su ko neexee mu